tey jii moom dañoo parce que liñu fi indi ci terrain bi defena né ñepp xam nañ ko mooy euh, top li nga xamné mom le président de la république wax té diko jëfé xam ngeen di ñepp na le 4 janvier dafa lancé liñuy wax moy cleaning day moy premier jour bi mu lancé ko mu ni wër bu jot ci gaawo bi nañu premier gaawo bi nañu dem euh, nettoyer lolu dafa né

Euh, service de l'État yi fi de euh, autorité religieuse autorité euh, l'armée est là mais ñepp fi élèves étudiants enseignants chauffeurs mécaniciens yi man taxi clando taxi dëkk bi yépp dëkk dëkk bi waratul set lu ci dañuy inscrire ci durabilité ñu constance parce que cette setal est waye toujours moko président bëgg mooy ci programme zéro déchet bobu. bu ñuy set setal ñu à zéro déchet à Thiès mais loolu dafa di nañ ko continuer du rek euh, diw day ñëw maire bi day wala day ministre day wala responsable pour ñu Nous bale dafa l'œuvre de tous les jours bi ci des moy que am réflexe bañ di mbalit toll café jël verre ba bo lekkee sandwich jël kayit ba sanni bo nané ndox jël plastique bi sanni ainsi de suite lolu moy rek be kenn di gas fukk di soul dañu bëgg ci Ceesuwaay yi ak Sénégalais yi yëpp ñu bayyi comportement yoyu bu defal seen dëkk set cleaning day la wax Sénégal propre la wax zéro déchet la wax c'est l'œuvre de tous c'est l'œuvre de chacun c'est l'œuvre de toute la population chez thiessoise mais c'est l'œuvre des Sénégalais aussi